ngi nuyu tous les internautes euh, de cette grande télé comme vous avez vous l'avez dit tout à l'heure euh, Baol Times nga xam ne ça fait la fierté de Diourbel. monsieur Dieng mu mel ni ku ne tàggat yaram tamit ne ne te mu mel ni monsieur le ministre Dame Diop euh, dañ ko dara jaale benn bés boo xam ne benn final boo xam ne yéen ci préparation bi. comme ni nga waxee jàpp naa ne événement bi. benn place grand place boo taxaw tey si Diourbel si événement boobu la ñuy waxtaanee donc ñi xool porté événement boobu moo tax ñi jël tout suñu temps daanaka depuis que événement bi commencé di jaillir si dëkk bi ñu ngi toog di jóg di di ko waajal ñu ngi koy waajal bu baax ni ñu ko war a waajalee parce que événement bi événement bu mag la euh, une finale régionale c'est pas donné à n'importe qui Donc c'est tout le, toute la région de Djourbel qui va se rassembler euh, le dimanche fii à Djourbel donc événement bu nga xam ne ñun jël nañ ko à sa juste valeur euh, en tout cas si préparation bi ñu ngi si bu baax a baax a baax waaw ñu ngi si dernier réglage bi tey si suba rek daje nañu pour finaliser sur euh, les les quelques points qui restaient mais vraiment euh, on attend un événement et nous pensons que événement bi nu mu dayoo bu mu toll dinañ ko dinañ ko dinañ ko dox ba mu toll fi mu toll. ah sur le plan de d' organisation. est ce que mën ah, euh, na ba nit ñi mën cee jàpp. événement bi ORCAV ñoo koy organiser euh, jox parrainage bi le ministre am bu mu ko ko joxee euh, mu delloo ñu ko ñun ñi nga xam ne ñun ñoo koy accompagner bu loolu bu mu amee tey tey tey au moment où mun naa ne. Euh, pare nañu ci côté mobilisation ah jàpp nañ ne c'est une fête de tout Diourbellois donc jàpp nañ ne Diourbel yëpp xañ nañ ci événement bi euh, joxe nañu invitation toutes les autorités de Diourbel pour ñu fekkee euh, événement bi waa ORCAV rek confirmer nañ ne tey le gouverneur sera de la partie gouverneur bu fa nekkee donc ça veut dire que toute l'administration sera de la partie Ensuite, au niveau, de, au niveau supérieur, euh, le, ministre sera là, dina ñëw et aussi dina am ay ministres yu ko yu ko accompagner mais le principalement lu ma la mën a wax jox la ko comme information mooy le ministre des sports sera là et si le ministre des sports est là ça veut que le président de la république est parce que tout ce qui est sport est confié à Makhtar Ba donc su fi Makhtar Ba nekkee donc euh, jàpp nañ ni euh, le président de la république est donc événement la de ba nga xam ne ñu ngi koy waajal euh, mobilisation bi dina am mobilisation bi dina am ambiance bi dina am parce que il y a deux artistes qui seront là il a Express qui est là qui sera là parce que gëm-gëm Dame Diop la daf ñu ne lépp lu mu mën lépp lu mu war a def bu fekkee doomi Diourbel mën na ko ma ma ma moom moom mooy priorité bu teg si euh, Aïda Samb Aïda Samb aussi xam nga ne doom Diourbel la donc ñoom ñaar ñoo war a ñëw accompagner les artistes locaux ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ay ñoom Baye Serigne ñi ay ñëw et cetera et cetera ñoom aussi nañ ñëw pour euh, vraiment rendre heureux la jeunesse parce que la jeunesse aussi am na fa nga xam ne bu fa tolloo fow nga bëggal leen pour que demain ñu que tout le donc vraiment si euh, yooyu lañu nekk en tout cas pour te dire que ñu ngi si mobilisation bi dinañ mobiliser dinañu fexe ba fête bi lu luñ si luñ si xaar ñu am ko. waaw sànq euh, touché nga ko muy wàllu euh, show bi xam ne war naa am wala spectacle war naa bi war a am si stade bi est-ce que mën nga ñu see wax yan surprise dëggantaan lañ si mën a xaar. bon mais bu ma bu ma waxee ça ça devait. plus dañ ñu koy dañ ñu koy <laughs> may suñu téléspectateurs yi xam ne ñoo ñu. en tout je sais que ku ñëw dimanche stade di nga xam ne les finales se suivent mais ne se loolu daal mën naa la ko wax waaw lu si des moom on laissera les téléspectateurs découvrir waaw mais dans tous les cas ça sera une finale euh, à la hauteur euh, de l à la hauteur des ambitions de l'OCAM de Guinée. te dañoo duñ la bàyyi mu ko te vraiment duñ la bàyyi nga lancé euh, benn appel bu si ak jeunesse bi ñëpp. voilà appel bu may lancer mooy je pense que avec Dame Diop euh, c' est pas seulement le sport on ne va pas euh, au stade pour seulement xool benn match génn si. je pense que dina am yu bëri yi nga xam ne des opportunités yi nga xam ne peut-être à partir de la là-bas Diourbel waaye dinañu xam lu lu lu lu Dame di def. parce que comme ni nga ko waxee peut-être je l'ai je l'avais oublié on prévoit à ce que balaa balaa balaa sa ñuy demee sax am ay jotaay yi nga xam ne. dinañ ko dinañ ko am fexe ba li nga xam ne moom la Dame Gueye di di def à Diourbel nit ñi xam ko. mais pourquoi pas sax ngeen organiser si c' est da ngeen pas exclu c' pas exclu parce que y' a beaucoup de propositions qui nous est parvenues qui nous ont été parvenues. Euh, am na ñu jàpp ne war nañu def une présentation de trophée une remise de trophée et cetera mais tout ça je pense que fii ak fii ak samedi vous aurez toutes les informations qui vous de, parce que dans tous les cas, on passera la journée chez, chez ministre. Donc, euh, vous serez là-bas, les, les, journalistes seront là-bas. Et puis, on fera tout que pour... Nous savons au moins l'ambition de Dame sur Durbel. Parce que les politiques, on vient là-bas pour faire la politique. Non, non, non. non. On ira là-bas ko nekk xam quelle opportunité nous avons avec le ministre Dame. Parce que c'est un ministre de la République. que qu'on ne qu'on ne pas sur un seul coin nañ jàpp ne kenn ku nekk war nga si am bénéfice euh, final bi prétexte la ça lui permettra de rencontrer la jeunesse bon d'ailleurs pour la deuxième fois parce que il était le de de la zone 4 pour cette année bien que yàgg na ko chaque année mu def euh, mu def euh, une rencontre comme ça mais pour cette année pour une rencontre régionale c'est une première c'est la première fois que Dame Diop parrainait finale de cette envergure-là donc euh, vraiment c'est des des opportunités à saisir que les gens viennent bu ñu ñëwee dinañ fa fekk euh, vraiment li nga xam ne ku ñibbi di nga am loo yóbbaale mais appel bu may lancé bu may lancé vraiment mooy na jeunes yi ñëw dans le seur but de euh, participer à parce que am na li nga xam ne da koo jarul parce que c'est nous dans nu euh, ni fête fêté ko comme une fête. et puis kenn ku nekk ñibbi tranquillement chez lui donc loolu laay lance appel boobu laay lancé vraiment du fekkee dañuy dañuy clôturer ma ma remercier ma remercier leen te euh, jàpp naa ne li ngeen di def nii c'est de l'auto-emploi te loolu ministre da koo gëm euh, continuer leen dans ça euh, nous vous encourageons nous vous poussons en avant pour que Diourbel aussi à l'image de toutes les régions du, du Sénégal Diourbel gis boppam dans le Sénégal émergent merci merci beaucoup monsieur Diédhiou ñoo amoon mbégte contentement bu baax a baax di la dalal fii si xapi nga comme ni nga waxee léegi sa kër di këru ministre bi di këru population Diourbel loage yëpp ñoo amoon mbégte bu baax a baax a baax di la présenté waat encore une fois seen euh, émission di question de l'heure fii mm. ah, ñu de dalaloon ko fii si Baol Times TV di remercier euh, suñu caméraman Mamadou Mbengue di remercier euh, kilifa kër gi di monsieur Sène ah, di sant ak gërëm bu baax a baax toute la population di merci beaucoup.